ñoo lamde a lam de julbeeri eh, ñooro rey ji jall futa tooro ñoo del rey kalmami almaami abdu buukar mbokk yi ànd ak ñun ci sen chaîne bi di xam sam tv amaan nañu mbégte lol de si fas yéene ànd ak ci sen émission bi di xam sam di émission bo xamante ni manes na def ci jëmm man ko def ci barab waye man ko def ci ab xew-xew xam ngeen ni doron nañu ak yeen ci gor yalla bobu di mohammed Lamine Dramé digganteem ak tuba bi li ma leen ni len tuba bi dañ doon jëf jëf yu ñaaw ba nopi di bind bayiko fi bi nu demee ba jot suñu bopp ñoom tubaab yi ñibbi waaye mu des ay bërëb ay mbedd ay tën yoo xamante ni ñoom jëfkat yu ñaaw yooyu doon notaakot yi ñoom lañu ko tuddee ba léegi góor yàlla bi di Mouhamed Lamine Dramé amul dara luñ ko tuddee fii ci senegal moo na lool day waroon na lool waaye fi mu jaar ak tubaab yi ñëwoon nañu ba ci ñaareelu pàcc bi di deuxième épisode bi gannaaw ba nga xamante ni ñëw na Touba Kouta te capitaine Fortin wax ni moom juróom benni téeméeri soldaar la yor góor yàlla bii di Mouhamed Lamine Dramé dajale moom ay junni bi nga xamante ni le capitaine Fortin dajale na soldaaram yooyu ñu waaj nag ngir dem songi tatay góor yàlla yooyu di yu Mouhamed Lamine ñu ni capitaine fortin Bobo dafa sonni ndax fi mu jaar dafa amoon ay góom bu munta war ci aw fos nga xamante ni nee nañu dañu ko wutal ak njoowaan gog ca la tëdd ñu gàdd ko euh, le jeune officier boobu di fortin ñan ñoo ko gàddu ñan ñoo ko yenu du tubaab ya de waaye tirailleurs yi ñoom ñoo wut ay bant gàddu ko ñu defar ak njoowaan mu tëdd ca ñu wékk ko ca bant ya tirailleurs yi gàddu bant ya ndax sonn na yor ay gëwum ba munta war ci aw fas kon xare boobu di armée tubaab détachement bi ki ko jiite moom mi ngi tëdd ci ak njoowaanam ay nit ñu ñuul gàddu njoowaan ga fan la ñu jëm Toubacouta ma nga tëdd ci njoowaan ga danaan leen il faut prendre la marabout journal bi mooy nettali ba léegi nee na Fortin ngi naan leen lu ci manti xew na ngeen jàpp sëriñ bii di Mouhamad Lamine Dramé auxiliaires yi ñoom it xeeti soldaar lañu ñoom ñoo jiitu nee ñu ngi jaar ci àll bi ba ñëw ci benn déeg boo xamante ni yaatuwaay ba mat na ñeent fukki meetar nga xamante ni am nañu jafe-jafe pour jéggi ko ngir jàll wut si Touba Kouta ba ñu lijjantee ba romb déeg boobu nag ci guddi gi ci fukki fan ak juróom ci weeru décembre ñu topp guddi gi ba neenuñu ci fajar lañu egsi ci tataay wala paleb nguur yàlla boobu di Mouhamed Lamine Dramé ci ak yàllu maanaam bett ko ci fajar gi daal di tàmbalee soqi ay sox jëmale ko ci tata ji muy pale bi nee nañu soldaar yi góor yàlla boobu di Mouhamed Lamine Dramé nga xamante ni dañu leen a bett nee nañu buñu ñu ubbee génn rek ñoor li bale yi ñuy tubaab yi di sorti seen kaw dañuy dal di duggaat ci biir tata ji nee na waaye sunu bal yi nuy soqi ñu ngi leen di faat faat gu metti nee na faat googu leen faat may bunt tirailleurs yi auxiliaires yi jappelé len ngir ñu mëna tataji. dugg ci biir tata ji ñana Ousmane Gassi mi jité guerrier yi bayiko won bundu nga xamanteni mom neena yeneem yep rek moy fayu jëf yi mohammed Lamine Dramé góor yalla bi jëfoon ay neena bi nu songé tata ji moom góor yàlla bii di Mouhamed Lamine Dramé am na fu mu jaar ba génn tata jëlu jeytu ñuy egsi ci moom waaye nee na loolu capitaine Fortin xalaatoon na ko ba jëloon ay matukaay yoo xamante ni bii xamoon na ni diggante Toubacouta ak Gambie ci fukki kilomètre lay toll taxoon na mu wut ay matukaay ngir xam ni góor yàlla bii di Mouhamed Lamine Dramé bu génnee Toubacouta fukki kilomètre lay def rek dugg gambi nee na loolee mu waajaloon nag auxiliaire yi ñoo jóg rek daal di topp góor yàlla boobu ànd ak gawaru Ousmane Gasi googu lan la leen Fortin mi kilifa gi wax mooy topp leen ko même bu fekkente ni dafay jar ngeen dugg Gàmbi itam moom daal na fexe moom Mouhamadou Lamine Dramé ngeen indi ko. loolu moo tax nee ñaari junniy nit. jot nañu ndigal ngir jéggi dex googu nee na ñaari junni nit ñooñu nag tax na góor yàlla bi di Mouhamed Lamine Dramé gis ni ña nga koy kar ña ngay dagg aw yoonam nee na moo tax mu daal di wëlbatiku nag ci wetu càmmooñam ngir wëriwaat jaar ci bëj gànnaar bi waaye foofa tam na fekk na fa juróom-benni téeméeri soldaar tubaab yu ko kar yo xamanteni ñoo tëj yoon woowu mu bëggoon na jaar nee nañu kon léegi ndar kepp nañ ko mi ngi ci diggante ñaari armée tubaab yi nee na xeex naag ñun waaye xeexul xeex ba yàggut ndax nee na gawarug Ousmane gi ñi ko topp ni nga xamante bu ñu doon rëbb bu ak lëg masaane tëb noonu la ko ay xaj di toppee kon gawaru Ousmane Gassi gépp fàq nañu topp góor yàlla boobu di Mouhamed Lamine Dramé nee na am na dëkk am na dëkk boo xamante ni joge won touba kouta di dox dang ko wara dox ci ñenti fan ñu di ko wax ngaga sukku ngaga sukkuta nee nañ dëkk boobu fa la mohammed Lamine Dramé duggu ñaari ko di ñaari armée touba bi yoyu ñi ngi top ci gannaawam dal di ñew wër daga sukkuta boobu nga xamante ni fa la góor yàlla bi nekk lan lañu def nee nañ dañoo daal di taal dëkk bi nee nañu waa dëkk bi daw génn waaye ku génn rek nee nañ ni ñuy fetaleeg lëg ñoom soldaar saa ngi taxaw taal dëkk bi ku daw génn rek ñu fetal la ni nga xamante ni ab rëbb noonu lay fetale ak lëg nee nañ sëriñ bi di Mouhamed Lamine Dramé xam na ni kon léegi waxtoom jot na la doon wax ni ñoom dañ cee boole ay ñaawal ndax nee ñu moom Mouhamed Lamine Dramé xam na ni waxtoom jot na war naa faatu xam na ni itam géwélam yi dañ ko doon nax ndax nee na géwélam yi dañ ko doon wax naan ko yow yaay soppeb yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ni nag soppeem boobu di yonent bi sallallahu alayhi wa aaratu ko protégé wutu ko moom mi nga xamante ni waxoon nañ ni ab soppeem moom mu waroon koo aar nee nañ yonent bi sallallahu alayhi wa aaratu ko mu ni mom Muhammad Lamine Dramé légui bokki julité mi la wara lay mom la gëna am lu mu wara rendre compte que ñom nasrani manam ñom tubab yi nee bi nga xamanteni wër nañ ko ndomba mom mohammed Lamine Dramé dafa daldi jël la war ngir xaru ngir teg ko ci boppam téq ngir rey boppam waaye nee nañu jamono ji muy waaj ngir def loolu ci la ko benn balu fetal dal di dal ci ab tànk nee nañu pistolet bi mu yoroon bal bi ci nekkoon mu bëggoon koo dóor ci bopp bi bal bi moo takk dal di ubbi gorjam maanaam fi ñuy rendee ab gàtt ñu ni balu pistolet boppam bi foofu la ko dal dal di génne ca gannaaw ga ca doq ga maanaam mu ngi mel ni ku tegoon balu euh, ku tegoon pistole ci sa baat fi ñu rendee am xar téq ko bal ba daal di génn ca sa doq ca gannaaw nee nañ mu daal daanu nee nañu bi mu daanoo ñu daal di daw daal di koy wër muy soldat si nga xamante ni yàkkamti woon nañu pour faat ko waaye nee na ñu gis ni mi ngi dund ñu ni kon nañu respecté dundam gi foofu nag dinaa fi indi ay leeral yoo xamante ni damay wax ni góor yàlla boobu ñuy wax ni da doon xaru loolu amul ndax administrateur coloniaux yi fi nekkoon yëpp bind ñoom ñëpp dañoo wax ni dañu koo jam ci ab lupp ab tànk muy muy nacc deret ñu wut ab civière mu lu mel ab lal ay bant tëral ko ca euh, Moussa Molo Balde ni léegi dañ ko yóbbul euh, capitaine Fortin ci bi muy dund ngir ñu bëgg koo mitital te loolu mooy li ndax nit ki munta jël pistolet tek ko ci euh, ak golem fi ñuy fi ñuy rendé am xar tek ko mu génn ci gannaawam ca baat ba ba noppi muy wéy di dund loolu tubaab yi bëgg lu ñaaw ak bëgg ko taxal te moom ab jullit la woon xamoon nañ nit moom du xaru kon jàng naa ci document yu bare bare bari waaye ñoom ñëpp la ñu indi mooy bi ñu ko gaañee ci tànk muy nàcc dañu ko tëral ci ak noppi kër li wala fi wax noppi kër muy civière comme lal yi nekk ci biir ambulance nga xam ni boo gaañoo ci la ñu lay tëral dugal li ci biir oto bi ay bant la ñu takk ba mu doon ab lal ñu tëral ko ca te yaakaar naa ni ku fetal sa bopp bal mu dal ci ci sa sa boli mu génn ci sa euh, euh, euh, nuque maanaam sa doq ca gannaaw dootoo mën a dund te ñoom ñoo wax ni bi mu daanoo dañoo respecté ak dund kon li nekk mooy gaañ nañu ko faatuwut gaañ jam nañ ko ci ab tànk ñoom ñëpp loolu la ñu bind ñoom Sébatier ñoom ñëpp moom la bind journal bi rek laa gis mu bind wax lii mu wax ni da doon xaru waaye loolu wérut kon bi ñu ko jamee ci lañu ko tëral ci li ñuy wax noppi kër muy ab civière ngir ni dañu ko yóbbul tubab bi muy dundu ngir ñu man ko mikikal ñu ni nag bi nga xamanteni bi daanu na te faatuwul ñu daw wër ko ni kat nañu respecté ndax bi ngi dundu ci lañu ab civière li ma doon wax loolu mel ni sur lequel ci lañu ko doon yóbbul capitaine Forte, bal bu dugg ci baat ba génn ci ak doq borom dootu dund bañ koy tëral di ko yóbbu loolu ku ko def ba nga daanoo rek fa ngay faatoo kon ñoom journal bi mi ngi wax di weddi boppam nee na nag bi nga xamante ni bii nañ ko ci lal boobu ci lañu daal di jël yoonu Toubacouta ngir fekki capitaine Fortin foofu nga xamante ni mooy seen cantonnement fa ñu fa ñu daloon fa ñu defoon seen base nee na yoon bi ak ngabar ngàbb yi moo yëngal gaañu gaañuy góor yàlla bi nee na mu faatu te wonkut kon nga gis ni sunu borom bind na bindul ku dul faatu waaye bind na ku ñu dul toroxal moom góor yàlla bi ñu ngi ko doon yóbbu ngir bëgg ñu mitital ko wax loo ko ba am lu ñu bind waaye gis nga nee nañ bi ñu ko tëralee ci lal boobu di ko yóbbu jafe-jafe yoon yu xur wi ak tund yi nee nañu ci lañu jekki-jekki rek gis ni moom kat wàcc na ab liggéey waaye nee nañu sans pousser un cri faatu na ci lu dul mu wonk wala mu ni on oh. ñu ni nag jamono boobu jant baa ngi tàng dara doxul suñ diggante jant bi nee na groupe bu vainqueur bi nga xamante ni ñoom ñoo jàpp góor yàlla bi di ko yóbbu muy ñoom muy ñi ñu gañe di ñooñ góor yàlla bi ñoom ñëpp nee nañu l'action maanaam action bi jant tàngooru jant bi di def toll na ci quarante deux degré ñoo na tàngoor woowu nag metti ba seen yuur yi di bax ñu daal di koy tàmbalee sentir nee nañu góor yàlla bi nga xamante ni bii moo tëdd ci lal bi tafaatu 42 degré yooyu tàmbali nañ ko sentir ñu ni nag kon moom kat néew bi war nañoo def ay pexe ngir man koo yóbbu ndax booba du jamono juñ am glace walla dara kon war na noo mën a fexe pexe ñu mën a préserver néew bi maanaam jëm ni nguur yàlla bi di Mohamed Lamine Dramé war na noo fexe pexe yooyu danañ ko def ba man koo yóbbu nenañ ñooñ yi bàyyi ko woon bundu dal di jëf-jëf ju ñaaw ji te nee nañu maa ngi jégglu ci waxin ñu sax nee nañu dal di wut paaka daal xotti biiram bii daldi di génne la nekkoon ca biir ba yépp daldi di cay sol xorom ba mu fees ngir bañ mu yàqu waaye nee na li doxoon seen diggante ak fa ñu campé sori lool te nee na ñu diggante bi amul ker amul dara xana tangor wu metti ba nee na wàcc matuwaay yooyu ñu jëloon ba jël jëmmi góor yàlla boobu la ñu def ca biir ba ñu ñu def ko génne la ca nekkoon sol ko ba mu ak xorom ñu matuwaay yooyee doyut ndax lu ñu gën di dox rek gis ni kat mi ngi soppeeku nee benn géwélu Moussa mulo Balde moom daal moo jekki-jekki rek fas wi mu waral mu daal di cëppeelu daal di jël paaka bu gudd dal di dagg bopp góor yàlla bi daal di koy dugal ci gafakaam gafaka mooy mbuus bi nga xamante ni ci la ñu sol pep di ko wékk fas yi ngir ñu di ko yëy nee na moo dagg sëñ Mouhamad Lamine Dramé boobu daldi koy def ci gafakaam daal di koy wékk ci bëñ tegam ñu daldi di bàyyi néew ba foofa dem ak bopp ba waaye nee na ñu tàngooru jant bi gën di tàng nee na nun ñi nga xamante ni deewunu sax tangor waa ngi nuy bëgg ray tangoru jant bi nee nañu bopp góor yàlla boobu tàngoor wi taxna na bi ko dag wekk ko ci bëñ tegam bop bi mi ngi tambali di soppeku nee ñu gis ni nag moom géwél bi mu gis ni kat bopp góor yàlla bii ñu tàgg te mu tàmbali di soppeeku mën na koo jural musiba ñu ni kon nan la ñuy def ñu ni la prochaine étape dëkk ba ñu njëkk a jot ci la ñu am xalaatu àbb cin def ci am ndox baxal ko jël boppu góor yàlla bi dugal ko ca biir ngir dindi der yi mu des kaangum bopp mi nga xamante ni dootul yàqu di jëf ju ñaaw di jëf ju metti joo xamante ni ñoom tubaab yi jëf nañu ko ci góor yàlla googu di Mouhamad Lamine Dramé nee na ñu daldi di wut ci def ca ndox teg ko ci tal baxal ko dal ci ciy bop bañ ko baxalé ñu dal di dindi derba ak yépp nee en effet cela peut permet en effet de dépouiller la tête de son revêtement noir der bu ñuul bi ëmboon bop bi ak kawar gi yépp nee na ñu dindi ko nee na mu des fa kaangum bopp ba nee na ci noonu lañu daal di ñëw ak bopp ba ñu ne li desoon ci Mahdi gis nga ñu ngi koy max Mahdi góor yàlla boobu noonu nii la ñu ko def ci kanam nit ñooñu nga xamante ni bëggoon nañ ko gëmoon nañ li mu leen daan wax itam ñu ni nag la dale Gàmbi ba Toubacouta ñëpp xam nañ ni yonent bi sallallahu alayhi wa aarul sëriñ boobu ndax bu ko aarool dee su dagg boppam di ko baxal ñu ni buntu àjjana yi itam tëju na ubbikuwul ngir góor yàlla boobu ndax nee nañu yonent bi aaru ko ci ñu dindi chevelure am kawaru ak deru bopp bi et sa tête déposée par le lieutenant-colonel Galieni... à la faculté de médecine de Bordeaux et désormais loin du pays où se trouvent encore des âmes pieuses pour rendre des têtes à leur corps et réciproquement di bi ak a ñaawle wax ni day moom day yonent bi tëjal na ko bunti na ndax ndagam munu koo aar ba boppam bi ñu dagg jëfandikoo lii ñu ci jëfandikoo kon Gallieni jël na bopp ba may ko faculté de médecine du bordeaux ngir ñu di ci jàngee mbirum faju nan la bopp di bindoo ak yooyu ak wax yu ñaaw yi nga xamante ni moom la ci teg bokk yi kon lii moo jëmoon ci li journal bii génne di ñetteelu pàcc bi waaye dananu dellu siwaat ci beneen pàcc toppal tubaab yi ba ñu yóbboo bopp ba nañu def ba xam ni bopp bi boppama ak ya ca xew yépp maanaam pour authentifier bopp ba ak sag ak euh, certificat ya ak témoignage yañ ca def yëpp danañu ci dellu si ba noppi nag interpeller l'état sénégalais ngir góor yàlla bi boppam bi nekk Bordeaux ñu jëli ko ak takkaay ya nga xamante ni itam danañu ci ñëw takkaay yi wurus la yoo xam ni tataam jooju nekkoon Toubacouta ak ay kaamili alxuraanam ñoom tubaab yi jël nañu ko ba loolu lépp ak boppam ba mu nga France kon fii la yem. ci ñetteelu pàcc bi di leen sant di leen jox dox daje di leen ñaan rek ngeen abonné ci seen chaîne bi di Xam Sam Réew TV ndax mbirum góor yàlla bi danoona ko topp ba mu jeex ci jëf yu ñaaw yi nga xamante ni ñoom tubaab yi doon nañu ko fi jëf te loolu moo war a tax seen jeexeetal yi jóg fi du mbedd du avenue du rue du dara du pont du statue bu ñu leen war a tudde kon maa ngi leen di sant di leen gërëm di leen jox dox daje ci seen beneen émission xam sam réew waaye français lan na gooru Sénégal ñi ñu dugal ñu dugal Sénégal ñi génn gàddaay far dem ba faatu ñu joxe seen gànnaay ndax ñu yaatu fan nañu saamu yi cëree bi soose yóbbu gabang boole koog baraama siise tala kapoor ba ñu lekke imbulaañse daf ko ci biir nag laaw la ma faraañse ñoo gën a lam de julbeere yi ñooro rey màkk doom ji jàll fuuta tooro ñoo del roy nag almaami Abdu Bukar